monsieur le gouverneur lépp loo xam ne def nañu ko ci région bi ñun xeeb nañu ko moo tax bi may ñëw ma indi juróomi million xeeb ko lool toftal ko ci li nga xamante ne mooy woote sëriñ bi ak ndiglu sëriñ bi pour jàppale ko kuréel gi nga xam ne ñooy xeex loolu ba incha allah di ñaan yàlla feebar bi aussi tamit mu yamale ko fi te aussi il faut que tamit ñu waxante dëgg ndax feebar bi mu ngi ci dëkk bi. te bari na fi léegi kaa yi ñu fi wax wax na ko li am Touba ñi nga xamante ni bàyyi na leen seen kër mun ñoo génn wax nañ ko kon loolu jàpp naa ni kenn ku nekk war nga tiit pour que nga xam ni war nga jël say matuwaay ba daje yu bari yi ñuy def yépp ñu jéem xool nu ngi koy maanaam def ba nga xamante ni daje yi man ko wàññi ndax njiitu réew mi président de la république Macky Sall ku ne xam na ne moo jiite réew mi mais Sénégal yépp tey ñu ñëpp ñoo ko bokk ndax Sénégal bu àggee fenn fii ñu ñëpp ñooy am ay problème kon nañ ñaan yàlla mu bañ a àgg fenn fii ndax réew yi ñu ëpp doole fu si mel ni Amérique tëj nañ seeni frontière fu si mel ni France tëj nañ école yi lépp loo xam mooy activités yu ñu def yëpp tëj nañ ko fu si mel ni Màkka aj gi nañ ko umra amatul fu si mel ni Iran amatul julli ajjuma lépp loo xam manifestation musulman la aj nañu ko mais ñun ay jullit lañ te ñu gën ñoo nekk ay jullit Maroc gii nga xamante ni tey ku ne xam ne siyaare fas bi tëj nañ loolu mais ñun nag yaakaar naa ni duñu ñu exceptionnel ci monde bi kon président de la république il faut mu jël ay matuwaay li ko sëriñ bi wax jël décision ferme pour que li nga xam mooy manifestation yépp yu mën ni doon mu annulé ko ngir sàmm li nga xam mooy citoyen fukki million ak ñeent waruñu ko jëndee ay intérêt personnel wala ay nit yoo xamante ni dañuy daje rek pour yërul